mu wax fa ne CPI la ñuy yóbbu Macky Sall ndax dañu war a def enquête te CPI bu defee enquête Macky Sall dañ koy yóbbu ndax nga jël ay xale bu ndaw 14 ans xale 14 ans policiers yi jël ko def ko bouclier loolu rek mën nañ ci tëj Antoine Diome am à vie Antoine Diome dañ koy tëj à vie xale boobu ñu jël teg ko ñu koy sànni ay xeer. xalé bobu il est traumatisé à vie xalé bobu addunaam yàqu na ba foofu bu doon tubaab xëy sax ñun nit ku ñuul sax dañoo dëgër mais bu doon tubaab yakuna té param parent day porte plainte am ay milliards ay jaam lañu ay noxor lañu Macky Sall billaahi wallaahi eh du Macky Sall kese de gars yi leen gisee ma excité ni wa APR yëpp dé nañ barke Rasulullah vous êtes yéen vous êtes tous morts parce que yéen xex bi fi ngeen ko yobbu mo graw ngeen jël ay nit jox leen fetal ñuy dàqi ay nit waa gars yi kenn mënu ma génneel vidéo boobu balaa sama laaj bi di jeex dimbali leen ma ngeen génneel ma vidéo bi dese naa vingt minutes wala trente minutes vidéo bi ma gis xaw ma Rufisque la Sénégal laa yi dugg ci oto gars yi nekk ci kaw ñoo ko doon filme dafa am ay sénégalais gars ñi ko filmer gàcce ngaalaama defe naa ay jigéen la sax ñi ko filmer ak seen téléphone gàcce ngaalaama

bilay barke rasoul lay ay sénégalais khalif général nan la mënee gis ñuy tiré suñuy xalé te waxu len Macky Sall abal ñu réew mi parce que son Macky Sall la ñu faral affaire bi du troisième mandat ku fi wax troisième mandat dinañ la ñuus ku yaakaar ne Macky Sall bu génnee ne waaw defatuma troisième mandat dañ ko troisième mandat ak mo am dafa am c'est la même chose Bala nga nam ya nga fa yow do fekkee février yow buñu amé amee jom bu ñu amee fulla billahi sénégalais buñu amé ñu amee fulla mois de juin bi Macky Sall dañuy abal manal mois de juin semaine bi daf Macky Sall daf ñu waroon wa wa wa waa F24 di ñu yóbbu ay sen manifestation du jour cott ndem ay gars ngeen baal man bugguma saag manifestation du jour dara xana xana ñu organiser rek xalé yi profité taal mi mais sen manifestation yo dañ ben nelawal lan moy ndey toog ba vendredi le lundi lundi mardi mercredi jeudi vendredi 5 jours il paraît que c'est 16 mois, ëpp na sax seize ëpp na sax seize man tu wax seize Khalif général nan ngay togué gis di ay di rey te du général de serigne Moustapha Diakhaté ana lettre Moustapha Diakhaté bi may wax may wax saawaay nee na day porter plainte Tunkara góor gi si Dieng góor gi si Dieng nee na day porte day porter plainte Tunkara te xamul ne Tunkara ci guerre de libération la nekk boo def dofloo ba ñu tëj fi Tunkara góor gi si Dieng yow dootoo ñëw Sénégal ñoom ñoom dañoo xam ne Sénégal yàqu na parce que moom ay milliardaire la moom mën na bañati ñëw senegal mune day porter plainte Tunkara parce que Tunkara moo ne ko yow yow nervi yow yaay jox yaa yaa yaa jox euh, nervi yi Tunkara tamit warul wax wax yoyu Tunkara wax yoyu waroo ko wax gor gui si jeen nan lay jele ay khalis nan day jël ay nervi mais gor gui tamit ci loolu rek nga ngay porter plainte Tunkara xamna ni Tunkara buy wax ñun xamna ni gëmuñu ko gor gui si jeen dina jël <laughs> Tunkara gor gui si jeen ban intérêt la nek milliardaire. di jël xaalis naan day jox ay booy pour ñu rey ay sénégalais mais su góor gi si da nga war a comprendre ne fi mu nekk dañu war a libérer Sénégal xel yi jaxasoo na xol yi tàng na looloo tax gars yi di wax mais boo dof-dofloo ba ñu jàpp fi Tunkara loolu sénégalais duñ la ko baal loolu soit di en passant waaw kay j'ai vu ça drive by shooting merci loolu la américain di wax drive by shooting nga dugg sa oto romb gis ay xale dóor leen waaw léegi. ñu naan ma retour xalif general de Tidiane ay way Sénégal bari jam jaam Tidiane mënulul dara suñu révolution la mafia politico marabouti xalif Tidiane ñewna na dafa feebaroon waaye feebar bi daf koy dakal ngir xalé yi bu len xex ma ngi dem ci Macky Sall té suma démé ci Macky Sall dina ko wax bu def 3e mandat li ngeen bëggoon da ngeen koy am Macky Sall troisième mandat bi ñun ñoko dindi dindi wu ko amul ben xalif général bu ko dindi ñun ñoo dindi troisième mandat ñun yamuñu ci troisième mandat dañuy nangu suñu rew bala 2024 bala demi juin bi dañ ci dañ ci wara nangu suñu rew ñen ñi wax ay waxu da ngeen ñu bëgg nelawat Macky Sall wat duñ ko nangu bi pa parce que 1er mars da ngeen ñu ñaan ñu may leen ñu jekku Sonko ngeen bëgg sacrifier Sonko waru leen sétane xalif général yi waruñu woon seetaan affaire Adji di ñëw wax Mame Mbaye Niang sax warul woon affaire Adji Sarr mais ñu bëgg ñu liquider Sonko parce que ñoom dañoo tiit gëmuñu yàlla parce que dañu yakaar ne Sonko bu xale yi bu ñu àndee Sonko dañuy bàyyi Serigne Touba mais xale yi lan moo tax ñu dara weddi sëriñ yi mooy bu ñu gisee yéen ngeen seetaan ñu ñuy rey te waxu leen Macky Sall jël jël say bagage nga dem ndax xalif général bu jugoon léegi ne xalif bu jugoon ne Macky Sall jëlal sa bagage nga dem bu boobaa boo leen ñu ne raam leen ñu raam boo leen ñu joxe leen boo leen ne joxe leen addiyee ñu jox mais ñoom xamuñu sax lu baax ci ñoom ndeysaan ñoom sëñ Modou Kara xamuñu sax lu baax ci ñoom doole ji ñu am sax xamuñu ko boo leen bëggee li seen maam liggéey santa mu continuer li ngeen war a def mooy bu bu dëgg jotee ngeen ànd ak askan bi ngeen gis ne askan bi Sénégal mi ngi waaj a yàqu te bu yàqoo yéenee perte ndax dëkk bu commencé di am ay pistolet Sénégal noonu la nar a mel parce que ñun tamit duñu ñak fayda di seetaan Macky Sall di jël ay nervi di ñuy tiré ñun ñi nek fi di leen sanni xeer billahi wallahi taala ñi ñi tuddee rebel légui ngeen gis leen Dakar force occulte yoy muy wax légui ngeen gis leen Dakar ñi ñuy rebel di nañu commencé ñoo parce que ñom rek ñoo yoro ñoo gum arme rebel yi ñi ñi wax rebel xam nañ fan la jëlé arme tay buñu jëlé arme di nañ ko duggal Dakar billahi barka rasulullah lu leen wax tak leen ko téré Dakar civil yi dinañ commencé am ay arm te bu boobaa ministres yi la ñuy fekk seen kër di leen dóor ay bal waa APR yéen yëpp li mu leen waxoon ne di ngeen dee ci deux yàqu ngeen xeex bi yéen a ci dugal yéen a ci dugal euh, fital américain di wax yu don't go to a gunfight with a knife defe naa loolu la ko américain di waxee yu don go to a gunfight with a knife fi ñuy fi ñuy reyante ak fital yow nga yóbbaale paak ñoom loolu lañu bëgg ñoom dañoo bëgg di yor ay paak yor fital ñu ñu yor ay xeer loolu day jeex day jeex de rebelle yi ñuy wax rebelle dinañu dugg dakaar indaale seen fital te ñoo leen gën a sadik ñoo leen yàq dag yàgg xeex te ñoom rebelle yi sax leen la ñuy xaar ñu rey Sonko mais léegi dootuñu xaar ñu rey Sonko armée bi xaw ma armée góor jigéen la ñu am xaw ma armée làppato la ñu am mais man gëm naa ne dina ci am ñoo xam ne du ñu seetaan ay pick-up di dàq suñuy xale ci bir tali di leen dor armée bi di dinañu jël sen responsabilité Sénégal yakuna Sénégal yakuna suma leen ko waxé rek suma leen waxé ne Sénégal yakuna yakuna fi mu nek dañu bëgg giifal xel yi di wax ne sëriñ bi ñëw na dafa fébaron bu leen ma tax bu leen ma bu ma kenn yóbbu kër yaama di tax mais sëriñ bu ñu aayee dëgg dëgg dëgg xanaa amuñu ay sar yo xamné buñ ko tere taree senegal day am jàmm nu mu amoon jàmm dama leen di laaj bu ma kenn yóbbu kër yaa di tax senegal yi yeewu leen buñ jigéen di leen wax àjjana yàlla nee na yonent bi nee na inna lazina amanoo wa amilni saalihaati wata waataw bil xaqi wata waataw bil sappi boo leen deewee da ngeen dem àjjana booy bas loolu leen wax keroog ay paa yu toog suuf mu naan leen yéen ñëpp bu soobee yàlla sëñ Tuubaa gàccee faal toog fa ah yow kay sa sabai sa bay ah fi liñ ko sul ah gatché fal yow sa yaay kusul mutok ko tour mu tok ci suuf ñàkk fayda mu nan len ah señ bass boy bass di wax gaay ah waa yéen ñëpp bu soobee yalla bo len demé aljana señ Touba di len recevoir ñom mënu ñu tari ay saar fitna bi jeex ocean yaangi tak jeppet mënu ñu tari saar ocean yi ah Eiffage bi mi ngi tak jeppet autoroute bi di tak université kër kër kër kër kër tak yi takk xanaa ñoom mënuñu taal ay saar am na sax ku juum ba taal benn kër sëriñ ñas ñaseen xanaa ñoom mënuñu tari saar Cheikh Ba Cheikh Baara Ndiaye affaire baat yi nii nañ ko jël ñu teg fële buguma attaqué Cheikh Baara Ndiaye de waaw bugguma ko attaqué de mais lii dalay wan sama chiffre baa ngoog 44 44 waaw waaw chiffre bu mystique la saa yi may wax affaire mystique rek mu ñëw Cheikh Baara Ndiaye affaire baatin yooyu ñu ñuy jëm gëmloo il faut ñu jël ko ñu teg ko fële ndax mi ngi nii tey ñu jàpp ko ñi fi nekk di wax ne am na sëriñ yoo xam ne boo demee ñu ñu tari la saar doo mës a dugg kaso Cheikh Bara sax dafa mel ni mës naa ko dégg muy wax loolu am na saar yu am ne affaire yoo xam ne boo ko defee doo dugg kaso bugguma ko bugguma ko bugguma ko xala parce que Cheikh Bara boo demee sax moo tey ñu jàpp ko waaw parce que jàpp Cheikh baara dafay tax Macky Sall gën fi gaaw a jóge parce que Macky li mu comprendre lu mooy Cheikh Bara dafa am ay nit de Cheikh Bara mi ngeen gis ngeen yaakaar ne innocent la Cheikh Bara HLM la dëkk HLM lay fréquenté usine benn tali naan di tee la da daan football naan di tee la dama leen di wax benn affaire dañoo taal koto est-ce que dégg ngeen Cheikh Bara mu wax dara ci oto bu ñu taal waxu ci moom day jëf bu ma kenn yóbbu kër yaa ma ci day jëf de ndax otoom dañ ko taal ñu toog deux jours six oto <laughs> mataar ba tàkk jëppeet du ma ne Cheikh Bara la du ma ne ay taalibeem la de waaye bàyyi leen ci xel dafa am ay taalibe de Macky Sall bu yaakaar na ne liquide Cheikh Bara mais nag dama bëgg ngeen comprendre Sénégal lu ñu tardé inna lazina amono wa amani saalixaati watawaataw bil xaqi watawaataw bil sappi moo ñu tardeel xalif généraux yi bu ñu amoon doole dëgg dëgg bu ñu amoon baatin dëgg dëgg mais nañu tari ay saar Macky Sall jóge fi nañ ko def mais d dañuy toog ba dëkk bi tàkk ba yàqu te instant bi foofu lañ toll point de non retour billahi wallahi taalaahi Macky Sall woow la na woow la boo xam ne dëgër na gat dëgër gat boo xam ne Marème fay soxor na iñaan na iñaan boo xam ne dañoo yàq senegal lu musul lu gis lu ñu musul gis waaw ñu naan na xalif bi ñëw na dugg na fii mais lii yëpp seen bopp lañ ko def Sonko yéen xamu leen président Sonko léegi damay def laaj ba jeex sax du ma tudd Sonko Sonko dafa leen ne dafa lii laa leen bëggoon wan Sonko du nit illaha illa ku ma ne woon Pa Moustapha Diakhaté nii la bu jugee di wax Serigne Touba waaw Serigne Touba waaw Serigne Touba moom dafa aw ba bilaay barka rasul waaw ah yonente bi xam nga lan la waxoon ci amna lu ma waxoon ci yonent bi ah, ah, ah, sëñ Touba xool leen ko Pa Moussa Ba Jaxate mais Sonko du nit mais Sonko dafa genné jikko dooméram yi nekk ci Sénégal xool leen déggu leen pa bi limu wax réponse à l'insurrection terroriste du cooki final d'Ousmane Sonko titre bi rek dalay won né ñi ils n'ont rien compris ndax yow ñaari fan ñu téegal leen sarap leen nga gis yenn ministre ñu taal seen kër yow nga am fit génn di bind lii titre bi rek dafa réponse à l'insurrection mooy tontu yee fitna terroriste defkatu ñaateef ñi woote xeex bu mujj fin bu Ousmane Sonko titre bi rek da mais boo ci limu wax nee na mënu ma leen parce que fu gudd le euh, qualifier le Pastef d'organisation terroriste nee na Pastef dañ leen war a ay terroriste dañ len wara dindi seeyal dissoudre et criminaliser les actes de destruction des biens publics nee na yi ñu taal jëppeet Moustapha Diakhaté nee na ah effacer bi ñu taal jëppeet loolu dañ ko wara a dañ leen ñi ko wara def dañ len jàpp dañ leen war waaw lan la waxati ah Pastef lépp lu mu am ci mairie ak collectivité territoriale dañ ko war a nangu Pastef mairie ni ko Ziguinchor bi nee dañ ko war a nangu nee na fépp fu ñu am ay conseils municipaux dañ ko war nangu le Sénégal est attaqué par des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur nee Sénégal dafa am ay noon yu nekk ci biir dëkk bi ak ñu nekk ci bitim réew waaw nee na ce qui se passe dans notre pays est une insurrection terroriste nee organisé par Sonko et le passif loolu rek loolu rek jeexal na wax nee li xaw Sénégal ay terroriste yu fépp te Ousmane Sonko mo len jité loolu la ki wax ko xamné ne réew mi takna wa ñi am xel wa APR yi nek ay nit ñu melni ne Ahmadou Ba ñi ngi ñi ngi ñi ngi day sen Toubay fu mu nek ñi am xel la wax de ñi am xel ñi ngi day sen Toubay commencé jël sen xaliss diko rawale. mais dof yi la Sonko jëfurloo ñaari dof nag laa gis ñu ñu jëf ñu jëfur parce que lettre gudd la ñu bind muy Idrissa Seck ak paa bi paa bi nekkate nii la mel mais paa bi dëmm la paa Moustapha jakate nekk dëmm la te li balaa may dee ñuy mu woo sëñ Touba waaw waaw sëñ Touba oui barke soo su laay waaw waaw Touba Touba sëñ Touba sëñ Touba moo bind lii. les voyages perpétrées au Sénégal ne sont pas des manifestations de soutien à cause à une cause ou à des réactions d'émancipement politiques ou sociales. il s'agit d'une insurrection terroriste perpétrée par des ordres d'insurgés qui ciblent les points névralgiques pour paralyser le pays Nous dégoûtons pas baal infrastructure transport eau électricité aéroport banque merci merci au moins suñu li ñu jot nous yàq mi ngi ñu koy waxal suñu liggéey bi rafet mi ngi ñu sëñ Moustapha jërëjëf ak ça infrastructure waaw waaw daanu na euh, transport dem na teer eau tëj nañ ko électricité fay nañ ko aéroport mokkal nañ ko banques yi sàcc nañ leen dévaliser nañ merci merci nee na loolu terrorisme insurrectionnel la face à ces actes terroristes et insurrectionnels d'Ousmane Sonko la réponse de la République doit être implacable nee na euh, euh, ah, Macky Sall bu gisee lii yëpp dafa war a soxor tontu bu soxor la war a indi Wow. Il s'agit de qualifier le PASTIF d'organisation terroriste, procéder à sa dissolution et l'arrestation de tous les responsables. Nous sommes tous les gens qui PASTIF est les gens qui ont été mis en place. Ku leen wax ne pas Moustapha Diakhaté bu jigee sol koppateem ni la ni la mel mais lettre Idrissa Seck moo gën a bon <laughs> jot Idrissa Seck ndax non pas bi moom yëfu dëmm la def mais Idrissa Seck moom faramaçon la lettre Idrissa Seck moom lettre franc-maçon non il faut ma je ko ma ñamal le président de la république doit engager la procédure parlementaire pour criminaliser sans délai avec effet rétroactif pour punir les auteurs et commanditaires des actes de détruction des biens publics nee na Macky dafa l'Assemblée a dem ci assemblée mu créé une loi li fi le a yàq ñu dellu ginnaaw oh paa bi paa bi paa bi lan la waxti

noq yi ñu leen noq mënatuñoo retenir seen bopp dañuy dem ba jëfur barkeer soo laay Sonko du nit te Sonko mi ngi toog fi mu toog ñemewuñ ko jàpp <laughs> xam nga gars yi lan moo lan nga bañ nit te mënoo ko def dara parce que xam nga ne boo ko laalee àdduna di tukki barke rasulaay bu ñu juumee ba laal Sonko <laughs> Sonko bu ko neexool day day dem day jàpp boppam dóor boppam mbëkk boppam ci miir bopp bi toj mu génn léegi filmer boppam ne waa di bépp ñoo dugg <laughs> toj sama bopp Sonko sadigul Sonko dafa baax man su ma doon ko damay mbëkk miir <laughs> sama miiru kër laay mbëkk deret bi génn ma jël Facebook live ne gars yi gis ngeen de ñu ngi may rey ñu ngi ni dugg nañ sama kër xool leen ma ni ma mel est-ce que jot ngeen image bi gars yi ne waaw jot nañ ko bu ñu leen leer jot nañ ko ma coupé ma coupé live bi gaaw leen ñu ngi may rey barke Rasoulaay Sonko dafa baax Sonko dafa baax barke Rasoulaay mais Sonko du tax def parce que xam ne ne dañuy ñëw ci moom yàgg-yàgg dañuy ñëw ci moom te mën na am ñu rey ko bu ñu juumee ba rey ko Sénégal lañ koy def dóom wala dóom lañ koy def ñoom xamuñu ne ñun amuñu lu ñuy perte xam nga ñoom lan la ñoom kër yu rafet ñoo ko yar oto i baax yi ñoo ko yar jéeg gi ñoo ko yar ñun famille rek suñu famille rek la ñu mën attaqué te ñun suñu famille nag ñoom man sama famille wàccoo nag ñoom joxe naa dépense vingt ans sama papa cent an ans dund na ko boo leen ko reyee da ngeen koy da ngeen koy noppal rek mu dem fekki sama yaay àjjana sama yaay dee na depuis 2011 sama papa mooy le dernier des Mohicans waaw film film indien yi seetaan leen film indien le dernier des Mohicans tubaab bi dañuy ñëw rey indee yëpp ba mu des indien Mohicans yëpp la ñu rey ba mu des benn suñu kon paa yëpp a dee ba mu des sama papa. sama papa mooy le dernier de Moïka mi ngi si 101 ans wala 102 mi ngi 101 dugg na 101 ans mi ngi si 101 dugg na si 102 boo leen ko reyee da koy da ngeen koy dimbali rek dem leen ngeen rey suñu waa kër yëpp sama jabar wàccoo na ak moom soxna Diagne maa ngi nii di sacrifier deux ans di ko yónnee dépense bu deewee ngir Sénégal ñu xam ne c'est la ñoom xamuñu ñun combat bi fu mu tolloog ñun dañu yaakaar ne ñun dañ leen ragal seen toit bu leen tax ma saagalee ñu leen saagalee yomb. ñun ragaluñu lekk man deux semaines maa ngi fële New York fekk leen ma New York te du ma làqatu